kuñ fi jaay doole rek ci Sénégal ku nguuru Macky Sall jaay doole rek da ñu gis sa wet parce que lay andi mbir mi mën a law mooy kenn ku ne day toog bu ñu songee ka ca des di xaar te boobu jamono xamul suñu paree ci kooku ba tër ko ci yow lañ jëm gis nañ ko waxtaan nañu alhamdulilah donte xaw nañ koo sonal te ñëpp gis nañ ko donte it condition mel ni mu nekk ku ci nekk di nga xaw a sonn waaye euh, li ko président Malick Gakou waxee rek kilifa moom ku ko xam-xam ni gaynde la am na moral bi nitu mental la te du koo xam ne dañ koy xoqatal su loolu weesoo nag dañuy wax ni du ñëw rek dem moo ñu tax a ñëw mais ñëw wax ni duñu seetaan ñu sacrifier kii duñ ko nangu parce que dañoo ne ci réew moo xam ne dañoo am une justice boo xam ne lu yàlla xam doy na buñ ko waxee nag waxuñu tous les magistrats waaye ñaare dossier bu amee connotation politique rek suñu justice bi kenn dootu ko xam ne dañuy am ay procureurs yoo xam ne dañuy fabriquer sax dañuy créer di fabriquer ay charge ndax biñ ko téeg léegi bañ ko njëkkee dégg dégg ba pare ñaari charge yu ndaw lañ ko tegoon waaye démb wawaat nañ ko yokk ci yokk ci yokk ci te loolu yëpp ay instructions yu jot la ñun xam nañ nu mbir mi di doxee ne tey toog fële woo leen ne leen yokk ci lii yokk ci lii yokk ci lii comme ça ñu fexe ba am fu ñu ko jaare pour def mandat de dépôt pour ubbi instruction yàggal dossier bi te loolu yëpp nag ndax xam nañ ni kii du sàcc kii ku rey nit kii du nit ku bon mais loolu yep pour def xool nooy métisale nit lépp ci xol noy noy nooy lore nit bo xamné dafa né rek d'accord ma yow loolu nak moy nguuru Macky Sall ñepp ñëpp xam nañ ni caractériser nguuru Macky Sall te nguur nak du nguur gay mel ni wala mel ne la waaye nguur gi day niroog kiko kiko kiko incarner mom ci boppam mo mel non ci ay fayonto dóorante tejaté lor nit ñi ba paré mom ku and ak mom mu soo sàccoon al alalu réew mi yëpp mu jël a làq la ci gannaaw injustice yooyu nag la sénégalais yi ne mëntuñ koo nangu du am fii ci biir réew mi te du am ci kaawu kilifa ma teg ci tamit ni nee nañ ñu bi ne fii moom nee na mooy le seul préfet ci Sénégal boo xam ne nee na tant qu'il sera à Kaolack manifestation du fi am ñu ne ko préfet wax nga lu la neex dafa am xeetu fonctionnaire yoo xam ne man fonctionnaire la moom laa woon waaye moom la fonctionnaire la dans l'âme parce que fonctionnaire mooy servir ton pays mais terme petit fonctionnaire da nga gis nit ñi suñu daan xeeb fonctionnaire yi suñu leen di xas dañu naan un petit fonctionnaire de rien du tout xeetu yii moo tax ñu doon wax petit fonctionnaire parce que duñu xam lan moo tax ñu tok fi mom togu fi pour nek jaamu Macky Sall wala jaamu Antoine Diom da fay tok pour servir conformément ak li peuple di xaar ci parce que peuple moko fay salaire Macky Sall fay ko salaire peuple bi moko fayal jangam ba mu toll fi donc mom su toogee ni lu toll ni Kaolack tànk mi ngi fii kenn du fi def manifestation wax na lu ko neex ñukoy wax nak ni ci fan yu gatt bu soobee yalla ñun ñëpp dinañ dajé Kaolack def fi manifestation nationale bo xamné avec ou sans autorisation dañ ko def ci Kaolack amul fii Sénégal amul benn portion du territoire bo xamné mën nañ ko xañ ay Sénégalais ci jamono joju Macky Sall yor suñu auto yor suñu carburant jël suñuy centaine de millions di di jox nit ñi ay 5000 ak 10000 pour ñu ñëw dajé di ko teeru ñu ne léegi keneen ku dul moom amoo droit def manifestation loolu fan lañ ko teg loolu dootul am dinañ fi dellu si te li koy gën a gaawal nag mooy nañu def mandat de def ko kilifa bu boobaa nañ dellu si Kaolack ci lu gaaw def fi manifestation boo xam ne Sénégalais dinañ ko gis te du demee noonu la ca des nag ca des nag ñu daanelee ko di nuyu population Kaolack yëpp Kaolack mooy xolu Sénégal ci positionnement d'abord moo tax dama naan ko bëgg a def ville nouvelle boo muusoon milliards yi nga def jam ñaajo boo ko defoon Kaolack tey ñu am ville nouvelle Kaolack di ci positionnement di xoolu Kaolack waaye Kaolack ci wàllu économie loo xam ne soo xuusee tuuti dugg Gambie loo xam ne bassin arachidier fii moo tax ñuy wax tey Kaolack waroon na mel neneen lu dul nii kon ñun kawlax dañ koo dañ koo def ville d'adoption sama stage fii laa ko defoon bi may nekk enam am na yeneen ak yeneen yoo xam ne jarul tudd fii ñi wax waa population Kaolack ni ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen wax ni seen doom seen frère moo déplacé wu ci lu gàtt la ndax yéen ñëpp xam ngeen ni ñu ngi ñuy xaar Ndakaaru à 15 heures moo tax du yaatu waaye ci tournée nationale bi ñuy démarrer semaine prochaine troisième étape bi Kaolack gii la te dina ñëw toog fi lu yàgg lu mat 10 15 jours saafonteeg waa Kaolack jëflanteeg ñoom ba nga xam ne suñ fiy jógee Kaolack dina mokk rumb